Guèye production daanaan di jàmbar ji moo àndati ak Abdoulahat Ndiaye borom combinaison yu neex mbokk yi déglu leen bés bi benn bés la le 22 octobre ci arène nationale du xam ngeen ñaabu ndaw xale bi saf xorom lool te dëkk géejawaay te mën a bëre moo war a jàkkaarloo ak bawol bawol gi buur siin doomu Medina ak bawol ndaw lu rëy mbokk yi Guèye production ne lambu jooju nag la ñu jël daal di koy jagleel lee managers de la lutte combat spécial bi war a dox ci diggante armée bu ngéwél ak T-Max drapeau boobu la ñu jël daal di koy jagleel Fadel social borom Dakar Dakar Buzz Petit Zé dina fa jàkkaarloo ak Douglas numéro 2 général bu Pikine jàkkaarloo fa ak Vita mbokk yi dina fa jàkkaarloo ak number one bébé tay jàkkaarloo fa ak fils de Ben Dame Junior dina fa jàkkaarloo ak Boy Waranka fils de Ndéene jàkkaarloo fa ak bébé Zoro Paul dina fa jàkkaarloo ak doomu Loro waaye mbokk yi ak fils de Kati dinañu fa jàkkaarloo ci le 22 octobre ci arène nationale ñu ànd ci ak Dieye production mbokk du xam ngeen Dieye production bismillah asalaamaaleykum waa mairie Grand Yoff maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu waa Grand Yoff yëpp di nuyu suñu maire di suñu kilifa ma Diop Diop ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaare bu baax di nuyu tamit eh, ñiy liggéey ak ñoom moom yëpp di maa leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di kontaan ci yéen bu baax a baax di rafetlu tamit seen taxawaay am na solo vraiment di rafetlu tamit jeetaay gi wax dëgg yàlla kontaan nañ fi bu baax a baax di nuyu Omar Saliou ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Matu di leen ñaanal bu baax a baax di nuyu tamit eh, journaliste yi fii nekk yëpp vraiment maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu staffu Mbousnakh production mooy ñi ma àndal nii. Eh, ak ñi tamit ñi des te ñëwuñu mat nañ 60 personnes waaw kon ñii la yàlla dogal ñu ñëw tey vraiment ñi kontaan bu baax a baax ci jeetaay bi bu baax vraiment di jox suñu kilifa Biram Ñing mooy suñu kilifa ñu jox ko kàddu gi mu waxtaan ak yéen ziar naa ñëpp vraiment. jërëjëf Ousseynou euh, maa ngi nuyu ñëpp vraiment di baalu ak oustaz ñoo ngi lay baalu ak bu baax. sas Muhammad ndax tur bi rek bu ñu ko tuddee ci sunuy toogaay eh, dafay xaw a gàll goosi tuuti te par respect de la personne humaine moo tax nga waxee ni nga waxee te xam nañu dégg nañ la bu baax ndax am na lool boo ko waxee ci côté yële ñeneen ñi mën nañ koo féetalee feneen waaye comprendre nañ la bu baax wolof njaay dafa ne ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi te ku bëgg a jàpp jën boo wattuwul danga ñam ca ndox ma da nga laal ndox ma doog a mën a dóor jën euh, kon am naa yaakaar ne dañu lay vraiment baalu ak bu baax di nuyu euh, mon frère Paul Richard nga xam ne dégg naa turam bu yàgg te xaw ma kanam gi waaye tam nuyu monsieur le maire bi nga xam ne mooy sunu kilifa ñun ñëpp Euh, sëriñ Fàllu mi nga xam ne moom moo yor sport bi ñoo ngi koy nuyu bu baax waaye xam nga Mouhamad Fadal ci ñun rek doy na yaakaar mu ne ci wetu maire rek gën nañu am yaakaar ñun euh, staff bi duma ko wax naa production production boo gis boo seetloo c'est des centaines de personnes waaye nag euh, bu ñu waxee ne ne ñëpp ñëw dana metti lool te boo wattuwulee sax mbaboor mi dina yëngatu ba ñaan yu sell yi nga fi ñaan dana jafe pour nga ñaan ko donc ñu ciy jéglu bu baax euh, dañuy woo rek quelques personnes nee na ñu fexe rek ñu def remise de drapeau ku ne xam na làmb powum góor la waaye po moo xam ne kat métier la actuellement ku daanu rus waaye tam képp ku am sa journée mu ndaw boo watul ñu xeeb la dañuy jël journée jox ko ay nit ñu mag parce que dañuy jàpp ne journée yu mag la jël ay mbër yu gën a xajam ci mbër yi muy serpent serpent noir bu ñu déggee tur bi rek sunu xel day am fu mu jëm ndax jaan bu ñuul bu génnoon fii moom boo wattul joolaay ak tukkuleur yi jaxasoo bi dana euh, doy waar euh, waaye itam doomu jàmbur boole kook moom ñu doon ñaar ñoo xam ne kenn ku ne boo séenee sa moroom bu kilifa yéexee jóg rek xeex dana am ñu jël drapeau bi jox ko un guerrier ni ma koy tuddee ma jóob jóob un vrai guerrier un bâtisseur liggéeykat nga xam ne Sénégal boo fi nekkee toon nekkoo liggéeykat am naa yaakaar ne ñu bëri dun la sax lijjanti Sénégal toll na foo xam ne pour sa tour ñu dégg ko rek il faut nga doon jàmbar dëgg am vision doon liggéeykat am équipe bu dynamique bu nekk ci sa ginnaaw parce que euh, peccum liir bu neexee ndey jàpp ca wagg ya raison yooyu tax ñu xool Madiop di suñu maire ñi mu jaboote ñëpp xamuñ leen ñun ñëpp Grand Yoff la ñu euh, doore li fi ne ci Grand Yoff ci production bi boo ko génnee la des moom du bëri mënul xam ñëpp waaye ñëpp dañ koy xam ndax dafa woyof ba pare disponible du jànni kenn bu doon maire boo xam ne day laqatu nit ñi boo ko nee xëy mu ne loo mooy doye wala mu aj veer yi tante ko boo wattul nit ñi sax duñ ko xam mais à travers Omar Saliou un jeune dynamique dans Mbousnakh Production nit ku am vision doon xale waaye nag doon ko jubook askan bi xaj ci biir nit ñi ne man daal bu ma ñoon daal suñu maire bi daal ñu jëmmal ko arène national lu mu yaatu yaatu quel que soit les milliers de places ñu jël drapeau bu mag bi combat bu mag bi teg ko monsieur maire tëj ko ñu xool dayoom parce que mbaaxaayam ak disponibilité am ak la ñu yaakaar ci moom dafa jéggi Grand Yoff kon nañ ko yóbbu Pikine nga xam ne arène nationale c'est pour tout le Sénégal Sénégal yépp gën koo gisandoo mu mën a wax ay ambition am nit ñi gën koo xool ñu am ci moom yaakaar bu rëy kon Omar juumuloo Boucar jërëgeen jëf la presse matu bu ma limee du ma matal fu ñu ne yéen a nga fa te Sénégal lii mooy Sénégal tey juste deux minutes trois minutes ku ko tappe ci àddina bi dégg lépp ma jóob jóob ñoo ngi koy defar remise de drapeau nu war a xam xew la onze di lay doon dimanche daa bëri xajam bëri leneen na ko indi samedi boo ko defee tineen yeeg ngomeel yeeg seeneen ñi kenn ku ne waaj ñu sañ sa ba jekk ma assuré leen benn affaire dinañu jël sécurité bu mat sëkk et je parce que ku mel ni ma jóob boo koy dugal arène national kilifa boo ko fay dugal danga koy koy sécuriser mu génn biir ak bitti ak ca biir danañu jël benn sécurité bu am solo nga xam ne moom bu duggee dina nekk à l'aise buy génn nekk à l'aise ak ay nitam ba ñëpp ñibbi ci jàmm ak salaam loolu lañuy ñu fas yéene. ba pare duuy stade bi ba mu fees dell fu mu tourné gis ay nit xam ne ñii c'est des jeunes yoo xam ne boo xaree seen xol bi xam ne ñii dañoo bëgg a tëj làmb ji ci àddina bi waxuma la Sénégal kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm Mbaye Thiaw jërëjëf le champion ñu ngi lay nuyu bu baax vraiment di nuy assistance bi yëpp. waaye itam du ma fàtte parce que dama gis sama ginnaaw euh, li nga xam ne moom mooy mouvement euh, de la lutte contre le banditisme et la violence à Grand Yoff mu neex ma trop dama gis drapeau bi rek euh, commencé vivre ndax ku xam Grand Yoff boo ñëwee ñu ne la ah téyel say nangam tëjël say nangam mel ni leneen alors que loolu dëkkul Grand yoof ñu ko fii defee dëkkuñu fi dañuy def kay dem laqatu feneen feneen la ñu dëkk dañuy ñëw gonal si di ko def may profité naan ñooñu nanu ko bàyyi muy goxu Grand Yoff muy beneen gox Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te job ñun xooluñu ko Grand Yoff kese dañu koy xool pour Sénégal kon ngir yàlla na fi jàmm ji commencé à partir de tey ñu bañatee dégg benn banditisme bañatee dégg benn violence ci Grand Yoff loolu la ñuy ñaan vraiment encore une fois maa ngi di remercier den baalu ak jërë ngeen jëf. maa ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu ñëpp képp koo xamante ni dagg nga sa yitte vraiment ñëw fekk si jotaay bi di jiital ci nuyoo bi nag yi nga xam ne mooy monsieur le maire di ma Diop Diop euh, ak bépp ndaw boo xamante ni daa nekk ci liggéey. di ci jiital ci nuyoo bu jotaay bi ki nga xam ne mooy Bassirou Sàmm nekk adjoint maire chargé jeunesse ak ki nga xam ne mooy Paul Richard bi toog nga xam ne mooy chef de cabinet ak euh, oustaz comme ni nga ko waxee léegi ci waxam ju rafet di mu wax jëmmal jotaay bi mu jëmmal jotaay bi moom itam maa koy nuyu bu baax. ak di nuyu bépp administration boo xamante ni yaa ngi fi toog ndax jotaay bi yaatu na waaye am na ci ñoo xam ay responsable administration lañ ñu ngi ci jotaay bi toog kii nga xam ne mooy madame Samassa nga xam ne moom moo yor chef administration bi yóbbaale na ñëpp di nuyu kii nga xam ne it mooy promoteur bi vraiment di ko sant bu baax di ko gërëm ndax damay wax dafa am loo xamante ni làmm ku ne xam na ni euh, activité bu sport la boo xamante ni ñi ko bàyyi xel ci dëkk bi dafa bari lool mu nekk loo xamante ni euh, mu koy defee foofu ci grand théâtre kon bu bàyyee ñëpp vraiment jël kii nga xam ne mooy monsieur le maire di Madiop Diop yëkkati drapeau bi de moom laa koy tuddee jama jàpp ni grand gépp la ko tuddee ba tax na vraiment loolu moo mu def ñoo ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm vraiment di ko ci dalal xelam bu baax te xam ni vraiment ki nga xam ne mooy ma jóg nit la koo xamante nii lépp loo xamante nii activité jeunesse la yàlla dogal na ci loolu taxawaay bu mat sëkk la ci taxaw ndax moom comme li may wax rek meeru xale yi la lañ koy wax parce que ndaw la moo tax kon di ñaan rek euh, vraiment lii nga xam ne moom la ñu dugg yàlla nañ ci dugg bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin di woo bépp euh, nit koo xamante ni yaa ngi yeewoo Grand Yoff ci lii nga xam ne moom lañ dëgmal li nga xam ni mooy le samedi le 11 bi mu wax daa ngi ciy woo appel ñëpp ñëpp sañ sa ba jekk ñëw vraiment soutenir suñu promoteur bi nga xam ne vraiment moom moo jël drapeau bi teg ko ci loxol ma jóg man loolu laa amoon loo xam dama ko ciy wax kàddu gi kàddu cant rek lay doon ak kàddu ngërëm en tout cas ñun ci li nga xam ne moom la ñu dénk mooy sport Grand vraiment dañ lay remercier bu baax a baax ndax jàpp naa ne même boo ko tuddee wutoon ma jóg te nga nekk ndaw rek nekk grand di nekk ci lu mel nii li suñu devoir mooy accompagner la jàppale la ba sa bis bi réussir ndax jàpp naa ne ba sa bis bi réussir grand F moo réussir te bu grand F réussir dama jàpp ni ma jóg ba kon boo jëlaatee loolu lépp nag nga jël ko teg ko ci loxol monsieur le maire du ñuy def lu accompagner la vraiment jàppale la ba lii nga xam ne moom ngay duggal lépp loo xamante da ko ci am yaakaar nga am ci lu kawe su njort man kàddu googu laa vraiment di la sant bu baax. di la gërëm ak di la encourager ak di la féliciter loolu laa am loo xam dama ko ci wax li ci des damay bàyyi xëy na Bachirou mii kon mi ngi fi moom mi nga xam ni vraiment moom mooy adjoint maire mën naa ni moo fi teewal maire tey fii li ci des moom ci kàddu gi dina ko complété waaye kàddu gi daal kàddu cant la wasalaamaaleykum wa rahmatullah ok ñu ngi nuyu euh, mbooloo mi ci salle bi yëpp di ci jiital Serigne Fall Xuma nekk président de la commission sport du conseil municipal di ci teg aussi l' administration municipale sànq secrétaire municipal bi seen naa ko faan élage xam naa ni liggéey bi moo tax mu génnaat mais suñu nuyoo chef du personnel madame Sama Sarr rek dina dugal toute l' administration municipale bi nga xam mooy accompagner la commune mais le cabinet du maire aussi représenté par le chef de cabinet euh, Paul Richard accompagné suñu jëwriñ mooy jëwriñ Mouhamed Diallo xam ne day taaral suñu ay jataay mais di nuyu bu baax a baax ci tour monsieur le maire waaw nag production ñi nga xam ne ñoom ñoo organiser bis bu day ni tudde ko ko ñun ñi yàgg ak monsieur le maire euh, xam nañ ni li muy nangu ay drapo bariwul def naa ni 2014 ak léegi mën nañ ko wàññal ay drapeau làmp parce que bi ñu ko njëkkee fal 2014 saa ñu mosaan wax parrainage daf naa ñu déedéet jotagul mandat bu njëkk bi nañ ko consacré ci liggéey Grand Yoff ba Grand Yoff confirmé ni liggéeyal nañ ko nag ñuy soog a xalaat leneen et je pense que durant tout le mandat daf ko consacré woon ci liggéey Grand Yoff moo tax bariwul sax lu mu koy nangu donc tey ji yàlla def tegaat ko ci boppu Grand Yoff ay doomi Grand Yoff jóg jël bës bu day nii tuddee ko ko su ngeen gisee délégation bi fi toog rek xam ngeen ni ku jox cër mais ku fonk bés bi la ku fonk drapeau bi la te sànq dégg naa nga ni seen côté sécurité gi yëpp mais jàppal ni bu bés ba monsieur le maire ak lu mu am ci mbokkam ci kaalagam ci camaradam ci dëkkandoo daañu wuy si ba nga xam ni bés bi fonk nañ ko lool parce que nag ku organiser lu day nii teggi fi ñëpp jox la ko monsieur le maire ku ko fonk la te incha allah bu ñu eggee ci bés bi di nga ko xam mais muy wax ni nag day jël lépp bés bi yëpp teg ko ci loxo kilifam woy juram di responsable muy le président xalifa Ababacar Sall parce que moom day wax ni toogaayam ak doxalinam foo ko séenee muy dem bul laaj rek moom ci liggéeyal Khalifa Ababacar Sall la ne donc mu jëlaat bés bi yëpp nag teg ko ci loxo kilifa muy président Khalifa Ababacar Sall mais di profité rek di lancer un appel moo tax may gën a rafetlu teewaayu ñoom Mohamed ak waa mouvement de lutte contre la violence parce que tout am na am na am na lu lu lu sama kilifa gi wax te may jàpp ni. góom buñ ko bëggee xoo buñ ko bëggee faj dañ ko xoos ñun ñëpp Grand Yoff la ñu am am na ay yenn comportement yu ñu gis on a toujours l'habitude de dire que dëkkuñu fi donte am na ñu fi dëkkul mais nañu nangu tam am na loo xam ne fi lañu dëkk suñu ay dëkkandoo la suñu ay rakk la suñu ay frère la ñu mën a oser tenir leen un langage de vérité pour wax leen ni aujourd'hui la violence ne peut rien résoudre tey ku gis dans bokk de commune jafe-jafe yu am na fa donc tey bu ñu demee ba ay doomi Grand Yoff dem événement Grand xam nañu depuis un certain temps bariwu nga événement yi dem di seen seen drapeau bi mu nekk lu am solo parce que barki dem yéen ñëpp gis ngeen ce qui s'est passé au stade Parcelles Assainies parce que si l'autorité se bat pour mettre en place une infrastructure pour que jeunes yi mën ko utiliser mais dañu war a protéger ces ces infrastructures donc moo tax ñuy rafetlu seen taxawaay mais di lancer un appel que ne ñëpp mobiliser wu dem parce que làmb kat ñun ñu ci xamoon ci sunu ay mag mooy bu bés ba jotee nga añ ba suur naan sa ataay xool sa mbub ma gën a rafet xool sa parfum ba gën a neex daal di dem seetaani làmb mën a ñibbi donc appel bi ñuy lancé rek à tous les camps muy serpent noir camp muy doomu jàmbur camp ak tous les autres lutteurs c'est de diir dire que jouru fet la fet nag kenn ku ne da nga fa war a ñëw ak mbégte da nga fa war a génn ak mbegte que buñ ca teeloo képp koo xam ne yàlla jox na la ndam ñu xam ni yow yaa ko mérité bis boobu donc à niveau le maire mi ngi lancé un appel à tous les camps mooy que ñu def ko la fête de la jeunesse de Grand Yoff ñu def ko la fête de Grand Yoff tout simplement mobiliser wu ñëw ci bés bi parce que moom kat ku ko xam-xam ni tey ku fonk infrastructure la mais ku fonk doomu Grand Yoff la ku fonk ndaw ñi la ñëpp gis nañ ni Grand Yoff amuloon infrastructure tey gis ngeen stade Diaglé Bakhayokho bi nga xam ni c'est devenu un stade qui est très prisé par les par le mouvement sportif boo doxee tuuti di nga gis la maison de la jeunesse et de la culture parce que démb ñu inauguré la place des cultures urbaines qui une première en Afrique de l'Ouest et xam naa ni dans les jours à venir ñu ngi lancer un grand centre d'hébergement bu nekk à côté du stade baax Bakha pour dire que le maire ku fonk ndaw ñi la et durant tout son magistère Grand Yoff mi ngi def tout pour tegal leen ay infrastructures yoo xam ni doomu Grand Yoff yi war nañ ci mën a góorgóorlu ci noonu la ko président xalifa continué woon ñëpp xam nañ liggéey bu am solo bi mu defoon arène Adrien Senghor et que pourquoi pas réfléchir à l'avenir naka la ñuy def ba Grand Yoff événement yi mel ni bu ñu ko amatee ñu mën ko tenir fi en tout cas moom ci loolu la ne équipe ko accompagner yëpp ci loolu lañ nekk di liggéey encore une fois mi ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen wax ni daal bës bi fu ngeen ko natt rek ci tolluwaay romb na ko fa mi ngi leen di béral mbégteem mi ngi leen di béral kontaanteem et di leen wax ni bu bës baa dina ñëw ak ku mu am ak lu mu am ngir taaral bés bi parce que nag Grand Yoff ko moom di lancer appel à tous les natifs de Grand Yoff góor ak jigéen mag ak ndaw bu kenn manqué bés bi en tout cas ci côté administration cabinet lépp lu ci war ci taxawaay incha allah dina ko taxawee encore une fois daal loolu mooy kàddu yi ñu yónnee lu ci dëng rek ngeen xam ne ndaw li ñu yónni moo matul mais ki ñu yónni moom mat na sëkk xam naa ne bu toogoon wax ji doon na gën a jub ñun ni ñu ko waxee jërë ngeen jëf. bisimilah bisimilah rahmaani rahiim. maa ngi sant yàlla bu baax julli seen di sant samay waajur di sant Serigne Touba bu baax baax a baax jërëjëf Cheikh Amadou Bamba ma Rasul li bëggee ñëpp li bëggee assistant assistant bi fi teew yëpp di kontaanee sama kilifa yi ma toogal yëpp samay papa ñoo fi toog ak samay nijaay samay grand di gërëm presse bi yëpp ñoom matu waa jëli bi et cetera su ma nekkee di lim damay juum. maa ngi gërëm l' ensemble de la presse bàyyiwuma kenn en tout cas bis bi dafa nekk bis boo xam ne bis bu ñu ñor la ñun jeunesse Grand-Yoff parce que ça nous revient quoi bis la boo xam ça nous revient si ñun lay dellu siwaat ndax tey bu Bousnak production ñëw tuddee mu Diop maire Grand-Yoff drapeau kooku mel na ni ñun jeunes yëpp la tuddee drapeau moo tax man Matar Gueye gi ak waa mouvement bi yëpp may gërëm sama gars yi ma àndal yëpp au passage dama ne du ñu xaar kenn ni ñu woo dañuy dem parce que si lañ bokk. suñu yëf la barke Serigne Touba comme ni ko Omar Ngalla waxee man leen lii suñu yëf la quoi ça nous revient kon dañuy dem dugal suñu loxo li ñu si mën Madiop nag mu nekk suñu kilifa tey mënoo tudd Grand ku tudd Grand Yoff sa si Madiop lay njëkk a dem moo tax mouvement bi a xeex à ku nekk su ma la gisee loo may njëkk a wax ana Madiop ndax mi ngi siy jàpp man la moo jiitu ñëpp. te ma jëb ma koy xaar si lii mu war a ñëw teg si loxo baax na ñun bis bi dañ si am wàll boo xam ne dañu war a def stade taxaw comme semi nii taxawee protéger suñu bis mu rafet jëmmal ko sigil waa bus nag parce que tey ñëpp grand F benn bët lañ leen xoolee benn woy bantisme violence te alors que li ñuy jàpp ak li fi am c'est diamétralement opposé parfois ñi ñoo yor seen xalaat rek xalaat lu leen neex mais waa bus nag maa leen di wax ne bis bii ngeen tuddee ma jëb xam leen ne mouvement de contre le la violence ñu ngi si biir gars yi incha allah si kàttanu yàlla ñi ngi xaar ma ñëw teg ñu loxo ñu dem si bis bi promoteur bi tam yombalu ñu ko ñu ñëw bokk si bis bi bokk si organisation bi lépp ndax ça nous revient suñu yëf la tey nag ñu woo population Grand Yoff yëpp képp ku si nekk am nga si lii wàll ndax bu ñu tuddee ma jóob drapeau yi ñëpp war a jóg ndax ma suñu ma jóob la il tout bâti mois la de sa vie grace à Grand Yoff pour jéem a jëmale Grand kanam malgré am na foo xam ne compétence am yeggu fa mais mi ngi def li mu mën à ce que xam nga tey ñuy wax seenu Grand yëpp tey nañu boolewaat jàppale mu mu gën a jëm kanam durant son mandat parce que tamit kenn xamul suba yàllaa xam waaw di wax nag tamit promoteur maa ngi koy santaat bu baax a baax a baax ndax lii yombul tey lii promoteur yi ko ñemee bëriwuñu ñëw biir Grand jël fii benn nit boo xam ne ñëpp ko xàmmee xam ko nga tuddee ko drapeau war ko yóbbu arène nationale instant yi xam naa ne du ñàkk sax population yenn quartier yi ñu ngi dutee naan est que lii dina antu wala ñi ñi nii wala ñi ñi nee ndax Grand Yoff jàpp leen incha allah si kattanu yàlla ak mbaaxam yàlla nañu yàlla suturaal ba bis bi sotteeg jàmm te day sotti serpent nag ma koy wax moom mi nga xam ne mooy doomu Grand Yoff di bëri bis bi serpent bis bi bis bu mag la te drapeau Grand Yoff ngay bëri si kattanu yàlla yàlla na yàlla may ndam nga jël ko indiwaat ko biir Grand Yoff mais dama lay wax ni lépp si fair play ak sportivité ndax làmb sport te ñun ay xale lañ làmb mooy suñu teraanga si lañu nekk di si bay suñu waar tey loo si def rek suba da ngay ñaaw te affaire am na ay doomu jàmbur noonu laa koy waxee xaw ma sax ban équipe la nekk mais mu nekk sama mbokku mbër nekk sama moroom ñun ñëpp ñu nekk ay xale nekk si làmb ji xam nga di ko wax ne sport sport sportif affaire sportive la xam nga fair play sportivité lañ soxla. ngeen bëri seen combat que le maire gagne maire bi wàcc joxe drapeau am naajement ñëpp nekk si jàmm loolu la ñuy ñaan di gërëm ñu fi toog ñëpp di leen sant di leen wax ne kontaan naa di wax gars yi promoteur yëpp maa ngi leen di lancé appel képp ku xewle wala Matar Guy gi mu ñëw en tant que mbër nekk un lutteur en activité yor sama licence di bëri comme sa morom yi ba pare créer non violence non banditisme parce que c'est quelque chose boo xam ne je parle en connaissance ko dund pendant des années mu nekk si kaso bi loolu yàkkoon si làmb ji xam mooy wow promoteur bi di leen wax képp ko am sa bis woo ma mu ñëw ñu présenter drapeau bi jëmmal bis bi wan ne jeunes yi violence ak banditisme amul sens matu mi bi ma dugal jëli bi samay moroom mbëri dafay nekk chaque jour di waxtaan mais ñu si bëri non violence bi dañ si kontaan bi dañ koy jël di ko statut seen koñ yi ak di ko woowee seen supporters yi parce que loolu la loolu lañ fi am ñu ne xale lañ làmb ji yéen amu leen yi yéen loo leen fi mooy di ñu tëgalee combat di ñu woon jël li ñu moom may lancer appel population sénégalaise képp ubbil say bët nga xool jël violence ak banditisme xam ne amul sens ñuy yàqal on est appelé di wax ñëpp nag waajal leen retour Matar Gueye arène nationale ak non yi en woo ay liggéey lu metti si toog si tànk yi merci beaucoup di euh, ma macha allah. Euh, daa am li ma fàtte woon tuuti rek. xam nga picc bu naawee. am foo xam ne dafa samp ay tànkam jóg naawaat rek xamal ne toogaay ba des Matar dama ko yéex a xàmme trop di may wax yëpp xàmmewuma ko par que courage la mu saf ka ko màcc ko xam ah, loolu la Wolof Njaay wax de séeréer laa nag ngeen baal ma monsieur le maire ngeen jéggal ma hmm? képp ku jiitu ci yoon wala ngeen àndoon euh, guddi mu naan la moytul fii daf faa jaar bëccëg xam la fa ne kon le message est très formateur dégg nañ la bu baax et attends-toi jarul ngay préparer pareel je le dis haut devant les caméras pareel te dinga nga bëre mbuus na production dina la bëreloo ngir ni mu la fekk ci ci li nga ne waaye itam nga def ko muy lu noble kenn du ñu njëkk ci loolu. incha parce que Madiop sunu bos la. Madiop a dépassé Grand Yoff wax na ko léegi. gis nga nit booy liggéey ak moom peut-être yéen ñi ko gën a jege doo leen xam sax li xew. Mm. il faut nga génn nga xool 2014 ak léegi. Mm. wala avant 2014 comment était Grand Yoff. Mm. et actuellement comment il est. ñu xool kan lay dakkantelee boppam. boo ko xoolee image ban ngay gis le socialiste. pure et dure directement Senghor directement Abdou Diouf directement Khalifa Sall sunu président duma ci sori nag balaa ñu ne damay campagne je le dis bien le président xalifa Sall te nañ dem ba ci kanam xaayaan ko dégg séeréer jërë ngeen jëf. voilà donc euh, merci beaucoup je pense que kàddu yu jóg fii nii vraiment c'est kàddu yu yu ànd ak mbégte bu bari la donc suñ ko dégloo rek dañuy gën a bég et dañuy gën a motiver wu gën a engagé wu gën a am détermination pour faire de Grand Yoff un très beau village parce que Grand Yoff c'est un village planétaire c'est le Sénégal en miniature et li fi jox comme kàddu dañ koy rafetlu e di wax rek tout simplement comme ni ñëpp ni ñu ko wootee rek incha allahu rabi le onze incha allah dañ si taxaw taxawaay bu mucc ayib bu ñu yàlla may wër ak wërle je sais que le maire la sport la jeunesse est un volet qu'il vraiment à comme les prédécesseurs l'ont dit donc ci loolu je pense que dañuy jóg rek daal di euh, jàll ci cérémonie de remise bi euh, ah, et di fàttaliwaat bu baax a baax comme ni ko Ngalla waxee ñëpp nuyu nañ ko donc euh, vingt 27 on fait on lance un appel à tout le monde à toute la jeunesse de rejoindre le foyer des jeunes ñu ñëw foofu daal di def vraiment la signature et ñu def ko dans le fair play et la sportivité c'est important parce que je pense que ni ko guy gi waxee suñu déggee slogan boobu rek je pense que ci loolu la war a doxee parce que nous avons quelqu'un aussi qui a bâti Grand Yoff il faut que aussi nous nous tous ensemble ñu bâtir Grand Yoff bañ ko yàq bu ñuy tabax yaakaar naa ne kenn warul yàq dañu war a defar rek mu gën a baax donc maa ngi leen di sant di leen gërëm salaam di delloo kàddu gi vraiment sama sëriñ suñ fàllu mu daal di ànd ak gars yi def bi